asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taaliba yi ndigal jóge ni ci cheikh mouhamadul muntaka al xalifatul am li taifatil muridiya ñu ñaan sun boroom mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëriñ bi wax ne bokki taaliba yi nga xam ne ñooy bokki taaliba yi Baay Faal yi mu doon liggéeyloo ci dëkk bi liggéey bi dafa des ñu war koo wóyal suba ci gaaw bi sëriñ bi nag wax ne jox na ndigal bépp taalibe bu ko man bu subaa mu togg ab añ yóbbu ko ca ñuy taxawu liggéey ba ndigal loolu la sëriñ bi joxe wax na ne daal bépp taalibe bu ko man bu subaa na nga togg ndab yóbbu ko ca ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey loo bokki Baay Faal yooyu loolu mooy ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko woon Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te wér ci barkeb Cheikhul jër jërë ngeen jëf